Ibrahima Malick. ça va Bella. Bella mais naka mu. ça ci jàpp. mais Bella ni ma la gisee woon keroog ak léegi ça fait deux. ah bon dama jigéen da par guddi. mais tu es toute belle là. yeah et puis bien ci jàmm. ani waa Galle. ma ngi fa ñëpp a ngi si jàmm Aliou Maguette mu ngi si jàmm. d'ailleurs sax moo ma bon mais mu ngi si jàmm bu baax. jàmm bu baax. Aliou Paa bi. Paa bi mu ngi fa di bëri caprice rek. yaa ma gën a xam. d'ailleurs sax sunu caat bu réew boobu Amina la doon utal gâteau fii tey la anniversaire am quoi. bien. c'est bien. mais yaa ngi si jàmm bu baax a baax. xam nga. yow xaas ma jëlaat sa numéro comme ça ñu mën a. waaw yoon la de. bopp yee toj rek bopp yee toj. mais loolu nga def. non non yow su ma nit. ok. ok. après tu me fais signe ah. ñu dégg. faale wéroo da ngaa dof waaw baax na ah d'accord yow fu ñu yaa ngi ci téléphone téléphone guddi téléphone bëccëg amuloo joti kenn sax benn xarit laa doon wax sa benn xarit quand même justement avant que koy fàtte sa xarit Pascal là, xaw Jacques je sais pas mais Coco, nekk mu attention qui tali bi def mais il fait du n'importe quoi xaw il dafay gymnastique ci tali bi Il fait dafay def euh, acrobatie ci bi mais ça ce n'est pas bien baaxul mais non attends j'ai pas terminé accident yu bari ñi dégg ci tali bi tout temps bu mujj bi Sénégal yëpp di ko joy yay commis de mort ah ñoom dañ jël tali bi defe na daal vraiment seen lal la quoi en fait ils font du n'importe quoi kooku noonu la mel ba ci dundam sax noonu la mel xamul def ndànk buy wax sax du wax ndànk benn di waxtaan nii sax du la may nga wax mais seen xarit la <laughs> mais loo ci mën mais vous l'appelez wax euh, naa guddi wax bëccëg mais Pascal munu changer Allemagne yi seen football moo metti oh waaye junior waaye nii de nga ko nar a jàpp soo xëyee rek ràcc ci matelas bi amoo dara loo def entraînement ñëw teg sa café di naan loolu da ngaa defe ne mooy àddina yow da ngaa mënti wuti loo def man mi di sa ndey di magum jëm damay te a xëy di guddee wàcc yow nga tëdd fii nga tëdd rek ràcc ko ne doo ko bàyyi ba ñu ma fubal de mais damaa bëgg nga am loo ko booleel ndax magum jëmm nga fii nga teg sa tànk nag sama xol sedd ci lu leer nag laa lay wax jugal nga wuti loo def. yow xanaa du yaa ma daan poussé ci fubal bi tey nga taxaw fii bëgg maa yekk lu mel ni xeme. yow boo xooloon ci man mi sa ndey ci fulla ak fayda rek ngay dox ndax sa papa dafa dee bàyyi ma ak yow awuma ku yow benn doom. musoo maa dégg ci lu ñàkk fayda musoo maa dégg ci luñ may manqué daan sama doy rek laa xam yoraale la ci nag. am na benn xalel bu jigéen bu ma daan faral di gis fii ah bon apparemment tu avais des intentions ci moom. mais depuis un certain temps je voilà je sais pas gisuma ko euh, tu m'en parles plus te euh, da nga toll ci wax dëgg yàlla takk soxna wax nga dëgg papa soo gisee déggatoo moo wax ay waxam. waaw jël lépp teg ko ci suuf. Hmm. ndax li ma doon xaar ci xale bu jigéen boobu ak li ma woon après bokkul naa ba ci biir gis ci moom ay ay jikko yu nga xamante ne ak su may jikkoo yamuñu. Hmm. ñaar ñu bokk principe rek ñoo mun ànd ànd bi sori. li xew jamono ji daf ma gën a tiital sax. Hmm. Il gis benn xale bu jigéen il ko may nan ko ay millions sëy bi du def sax 6 mois tas xam choix bi fu mu Khalil pour wala sax khalil bu jigen choisir ko gor beug mom ka kan la benen bi moy dafa bax di xool juddu juddoom na ngay na muy sa relation avec son entourage ay njàngat la yoo xamante ni soo bëggee takk xale bu baax yooyu yëpp da nga koy sóoraale ci biir. yaay viwu pro moom munul ànd ak ay liggéey yooyu pro moom da ngay yeewu dem entraîné ji boo paree ñëw tëdd récupéré mooy loolu lekk te yaay yaa ngi may toppatoo macha allah maa yaa ngi may toppatoo nice maa ngi lekk lu baax maa ngi def ay affaire te booy bu ma génnee ñoom deel yi nii ñeme wuñ ma de te ku ma ci teg ëppoon nga wàcc te man xool damay signé pro force damay signé pro par la force. tabaxal la kër yóbbu la màkka génne la ci situation yi nga ne loolu moom na sa xel dal t'inquiète na sa xel dal tànk yow soo ko tëggiwul ci bukkutaan gi dama fa yóbbu ba ma yóbbu màkka seen morom yi ngeen di gis ñuy agressé di këf yëfi jàmbur di def n'importe quoi dañoo bëgg a faj seeni soxla te am nanguwuñoo tàng looloo tax ñuy def li ñuy def leen nag dinaa la ko xamal lépp loo xamante ni daanaa ko def yow dama koy arrêté. demal nga wutali sa bopp. balaa ngaa

ngi bu baax waay. Salimata yow wax naa la ba tàyyi sama diggante yow amul coono lii daf ma war rek moo tax ma koy def te loo ci xamul bu nekkoon sama rakk bu jigéen nii laa koy defaree te yow umpale sama diggante yow cofeel gu bari mi ngi sama diggante ak yow. Papis man wax naa la ba tàyyi ngay wax sama diggante ngay bàyyi di wax sama diggante ak yow ndax yow yaa gën a tay ne sama diggante ak yow mënul nekk bàyyil yooyu nag. fekkee danga may jàppale te yàlla rek tax nga jàppale ma moo gën sa ngay wax. Salimata lii may def nii yàlla rek a tax waaye nag dàq ginaar waxaale sa soxla. gis nga waa tund bi bu ñu fekkee fii ñu taxaw dinañ ma yedd mbaa ñu dem ci baay wax ko loo xam ne méngoowul ak li may def fii. hey gis nga tund bii. bu nekkee dañ leen a bëgg a jox nopp ñoom ñëpp ah dinañ sonn de te ku nekk nag yaa ngi bëggante ki nga war a bëgganteel. loolu waa tund bi la sama yoon nekku ci ñoom ñoo xam. en daal waaw wuyu ma waa bul mer kaay dootoo dégg may waxaat loolu Salimata. maa ngi dem. baax na. non bu mu a doon baax na na nekk luy kenn mën rek de toute façon que man xam nga bu may business ay détails demi mesure yooyu quoi nante loolu business boobu dina lu mën man sawaruma ci du may dox si bis xalaatuma loolu non du ma ngaax du ma def loolu daf du man du man Sénégal moo ko laaj time is money <laughs> non non non t'inquiète t'inquiète pour sama loolu dama koy gérer sama business su bopp la you know man fu mu toll man naa la tegal bi waroon na ay jigéen lan ngay waxal. yow ma s'il te plaît ma rappelé la léegi du yàgg dégg nga. nii la ngeen def nii la def bu ngeen labee ba bu ñu leen di fay ak ñaan kii daal réew boobu daa ñàkk kersa fekk boobu du dañ fay bor bu ngeen amee bor dañ koy fa nit ñi dañ seen bor benn lax si rek benn lax si téeméer boobu yaa ngóorgóor di joxe kay benn téeméer xam nga mën a joxe di diw di xase ba te yoroo bor bàyyi ko may kar karee ba jàmm la déglu doo ma jox business bu am doole bu tol ni xam ne kenn mënu ma la wax nu mu toll dem tëdd di nelaw du ma nangu loolu lan la booy instant bu may woo mënu ma la wuyu parce que boo mag paa bi ñoo toog te waxna la li ma lay wax pa bi xam ba leg jusqu'à présent xamul li xew kon mënuma la wuyu ci kanamam. d'accord na elman business bi fexe naa ba détaché ben ponkal ko xamné lolu business am la da ko maîtriser waxtan nañ ci expliquer na ko projet bi ak yëpp il a bien compris koku bo teude nala wal lolou mo taxone malay kar karé pour ñu téla fété le business bi côté. man dé galé Junior la bëgg ñu ay ay xalé bi. seet seet seet seet. chaque jour junior toujours junior répété junior. kuma japp lañu ci koné gi. man mi du copain wax naa mu dëgër bop té kum ko ya ci mën dara ngir yalla ma la ka ñaan nga wax ak moom. d'accord parce que nit ki boo ko bëggee da nga koy jege. loolu xam nga point faible junior. ba baax nak man xamna dé may ñëw dem baye baye la nga nekk ci jaay bi. ku ma doxal. waaw ah, baax na ci samay savon ci samay carte eh eh eh et eh, déggal lii naka def sama saw yi da def xale jigéen ñi seen darul tëju avec du direct tout est possible man sama waxu démb mooy sama waxu tey yow suma nit nga te projet bi sa projet la ndax xam nga ne yow tooguma fi nekkuma fi bay diriger dara du ma joxe bokk nag di rocc la nen jiital naa la ci mbir mi mi ngi noonu sa loxo yaa xam koo ci dugal ak koo ciy dugal xam nga yooyu laa lay wax ay su dool yaa ngi indi ay détails ay manque de confiance kii milliardaire la soxlawul sa koppar soxlawul sa projet da ngay man man maa ko si dugal sax forcé ko si yaa may dégg na sa xel dal ci business boobu nante waxeewu ma foofu da ngay dégg fi mu bëgg a waxee manque de confiance su doon am suma ma diggante yow kon du ma jël projet bu tal nii teg ko sa loxo nga koy diriger yow sa alal suma alal la ndax man maa yow yow yaay man ma la su baxé ya ko baxal su boné ya ko bonal foofu lay waxé ngay wax ay manque de confiance. dégg na la numuy business nak xawna na ma ci ñamal tuuti entre 3% 4 ba 5 lay ngank ci sa business bi nga tel ko xam ko xam fi numuy doxé non lolu jarul moom koy wax parce que mak bu naan ndox bu tàng sucre sa tax. yaa koy géré yow yaay xol ban ki ngay lan koy mëna gis suñu and fa toog bulan moom bu la neexee sumaro nga takku ba mel ni supame sol lu baax nag bàyyi sa yii ngay ote su def bu rafet France solal tagit sa bopp fees gaay jox ci fii nag bopp amul dara ngay indi sol lu rafet ñu jox ci jara bot jara bot jara bot alhamdulillah jara bot jërëjëf waa kan toogal dama la soxla toogal kan tuuti

wahai it dama la gërëm idi la sant ndax toppal naal ma si ay tankam si lima ma neex laa la dox la ma naxari bëggu laal ka te doo si jaar ma di la ñaanal nag sab xarit nag boobu law àndal mu la nday njaay dëgg de na lool rawatina jamono ji nu wante man gëm na ma ne te bir na ma ni sab xarit la laa ko mën a téye téewe ko waa la ma neex rek mu and ndo ba bon rawati na yi legi ndax góor legi léegi waxuma ne pa bon wante amna ña xamne day la fekk ci yoon wu baax devier la duggal la ci yoon wu bon te yarewuma la noonu xamee noonu waxuma la nag bu bàyyi li ñu déedéet ndax kat ñaan na ma yàlla bés ñëw ma taaj la si ma digg kër gi oo may nawle may mbokk yëpp muur la sëy waaye nag yàlla na la yàlla dajale fa baax amiin ah baay man Ndeye Ndiaye rek laa am comme xarit demuma dikkuma aw ma sax jotu lolu mom na sa xel dal bu baax a baax amna lo am nekul sax sama xel. ba de ni nak ñaan ak bay mo la dal dom ba mu raw ak masam mak ñaan dina la dal. yal na la yalla defal amin bay jara bot mën naa la ab. jara bot ndax yàgg naa laa Doli, doli, doli doli, dooli baal doli, doli dafa bàyyi mu dolli. bisoo toog ngay fëri fëri nii di teg ay affaire yi jàmm kese moo fi xew li woon moo fi nekk. ma baal ma. wala léegi day jooy jooyal. daas. daas. daas. xool leen ma. ay om dal jaamu ni jaay. Eh. firi. tey bisu mbégte la li nga doon wër gis nga ko mu ngi nii. yaa ngi naa la bégal de daas. <laughs> bàyyi daas dootu la def dara. Ah. yow comme que ñëw nga rek daas dootu la def dara mais looy daw la moo la jaral lii. baal ma erreur la rek. Ah, mais dootu amati. yow xam nga ni bi nga fi nekk meloo woon nii man nga yàqoo te bi nga fi nekk da nga faaris jongoma. Dad. Dad. Dad. Dad. waa kii moom mooy kan ci sama buntu kër ak heure bii moom kese mu tëdd fii waaye est-ce que na man te maa dem dugg rek ah. te ma ci jéem waslu ak def julik ak moroomam ndax leneen lu ko fi fekk tamit bu ko fi dalé sama buntu kër la ko dalee te li naan non assistance à une personne en danger loi day dal sama kaw. jël nga yaakaar ni yow mun nga ñoo réer si town bi yow da ñoo gën a dëkk ci mbedd mi mu ne përee kanam përee ginnaaw ba duma def li ma bëgg a def mbaax ngay rëcc di taras di teg ay affaire affaire yi nga doon teg noonu mun naa seet nday joob ngay duul di dajale wax ci gën a neex laa lay wax mooy nga delluwaat ci gàlle bi nga joob ni nga doon joobe yaa ngi may ndey dégg eh xamal lan moo la may saan li ngeen delluwul waxoo loolu moo la may sens <coughs> mais boo waxoon boo waxoon soxna si lan ngay def fii ak heure bi soxna si